الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنهمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الدارين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر أنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا أتنا ما وهدتنا على رسولك ولا تحصنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اتنا في دنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا الله أشفي بها عمري لا إله إلا الله وادخل بها قبري لا إله إلا الله وادخل بها ميساني لا إله إلا الله أرده بها ربي لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله رجال الخيبة ورجال السعادة أهل الكسوفات وأهل التوبة اللهم اغفر لي خطيئني وجهلي واسرافي في اموري وما انت احلم به منا انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم لا اله الا الله العليم الحكيم لا إله إلا الله سبحان الله الكريم لا إله إلا الله رب الحرش العظيم اللهم إني أسألك موجبات الرحمة وخسائن مغفرتك والخديمة من كل بر وسلامة من كل سنب اللهم لا تدع لنا سنبا إلا غفرت لنا ولا هما إلا فرجت لنا ولا حاجة وهي لك ردي إلى خديتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا سريع الحساب يا من لا حول ولا قوة إلا بالله الحلي العظيم اللهم يا من أسحر الجميل وستر الخبيئة يا من لم يواخس بالجريرة ولم يحتك السترة اللهم يا هسيما العفو ويا حسن تجاوزي ويا واسع المغفرة ويا باسط اليدين برحمتي يا ساميها كل النجوى ويا منتهى كل سقوى يا كريم الصفي ويا حسيم المن ويا مقيل الحسرات ويا مبتدئا بنعم قبل استحقاقها يا ربي يا سيدي ويا مولاي ويا خاية رحبته أسألك اللهم أن لا تسوي خلقتنا ببلاء دنيا ولا بعذاب بجاه سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله wa qaalatil yaa Maryam inna la astafaaki wa tahaaraki yal na yàlla jéggal na suñu bakkaar yu jëkk te yàlla jéggal na suñu bakkaar yu ndaw tooñ gi lu mu réy réy rekk yàlla mi am kattanu effacé ko yàlla ko faase te jaamu gi lu mu tuuti tuuti yàlla ko yàlla nangu te ful ko boole ni ci jaamu yàlla gaa yu bax yi bi jaahi sayyidu wujud alayhi salaatu wasalaam yàlla may ñu kàttanu weer wi ñu eggale ko ba ca fin ba kenn bañ a dog ci benn façon woor ci cër woor ci làmmiñ woor tam ci ruhaniya bi jaahi sayyidu wujud alayhi salaatu wasalaam ci biir koor gi yàlla nañ ci yàlla mottali li ñu tee mat nit man bokk ci gaayam yi bi jaay si lu wujjóot alayhi salaatu wassalaam su ko defee rek soññi suñ bopp soññi wat leen li tax yàlla sàkkuñu te mooy ñu jaamu ko ngir lim ñu bëggal ñu mën ko am fàttali suñ bopp fàttali leen li ñu yàlla tere ngir lim bañ ci ñun mu bañ ñoo dal mooy dund ba dund jeex nga ñàkk lépp ndax fo xëy xëy tàbbi ci bàmmeel te doo ko fekk wenn yiw yàlla ci yàlla musal bi jay séddi jot alayhi salatu wasalaam bu ko defee pour ñu am référence dañuy dellu ci julli tey bi maa ngi jël lu bari na xew na fi diggante Sërif Asan bi ay histoire yu ñuy nettali yenn saa yi ñuy julli nga topp leen ñu jàng aaya génn aaya ba dem bàyyi la nga des fa yow ba julli gi jeex bu la yàlla bulu bu ñuy sëlmal da ngay sëlmalalu rek waaye fekk yaa nga fa gaare la daloon waaj rek di tukki dem garas du fa bagaasam bépp def ci oto coow li bari muy seetaan ba kaar ba bakku fa ñoom noonu la ñuy dund ak ñun yenn saa yi histoire yu rëy la net li sëñ ñoo jaar fa wax ni ñi tudde rasixuna fil hilm ta alquran tudd ko buñ jëloon ben bismillahir rahmanir rahim ba lay tukki yaak ñom di ngeen ko jaxal parce que lañ cey dégg motax tax alquran ni araf yi bare lañu ko jang bare te ñu kon ko ak morom noko ko bismillahir rahmanir rahim rek am ci ñoo xamni seen aduna ci lañ ko tabax seen alaxira lañ ko defal nga romb len fa yow di tari kamil te deggu kamil bi te ñom mëno yaal basmala bi yalla xam nako lo rek moy li fi nekk loolu introduction la mi ngi aduna yi nit ñi raw di ko alal matériel ay sato ay tukki abiya abiya yi benn baat la indi rek ni moo ci gën muy muy jëkkante ngërëmu yàlla saabixoo ilaa maxfirati mi rabbikum waaye du xaj ci waxtaan bi ndax ay suñu asan bii nañ ko seetantal ku nekk jàngat ko ndax benn nga nekk ci kenn ci ñi ma lay bëgg wax maanaam benn boroom kër benn boroom kër na ko jàpp ci këram ak ni muy yare njabootam benn njaboot ci biir kër gi ak ni mu nangule ay param xam nga loolu rek moo fi nekk bàyyi ak doom walla benn soxna ak jëkkëram wala benn jëkkër ak ci ak soxnaam mooy mooy borom kër bi ak njaboot gi rek ñaar ñett mooy sa dëkkandoo yi nga dëkkal seen gis-gis ci yow wala gan gu dox ba yem ci tawar a seede ngir jëmi yàlla lim xam su problème amee bu coow amee benn siis bu war a àtte ak doomu njabootu boroom kër bu naree tekki nan lay mel ci ay ay kilifa muy juróom yii rek laa la bëgg a wax moom benn aaya la la jàng ñépp génn ci benn boroom kër gi mooy Sakariya yonent yàlla Sakariya su ma noppee nii kan moo koy représenté ci nun ci sa kër benn njaboot bu mu yar mu tudd Mariama kan mooy doon Mariama ci jigéen ñi pour mu mën a prouver ay profam ëllëg ni ko Mariama bii defee ñaar ñett mooy bi mu prouvé ay preuve am bokk yi mu dëkkal kàddu yi ñu ko teg est-ce que bu doon yow di ko àttan soo tegul sa tànk fi nga ko war a teg ñett a noonu seede yi nga xam ne ba problème amee

moo war a won yaayam ni ko sa coono maa ko maa la ko war a dindil mu tudd Iisa alayhi salaam ki dox ba yem ci te nekk seede mooy malaaka mi bi ñu demee nag ci tribunal bi pour war a àtte juge bi mooy sunu borom tabaaraka taala juróom benn ngi noonu daan jéem ak suñ xarit ànd ci ku ne lay wi nga indi hmm? ñu set verdict bi koy mom sëñ asan problème bi la bayyi ci pinci dem tok fele <laughs> yalla xam na ko hmm? gis nga borom kër bu mat kër day doxale ni yonent yalla sakariya doon def te bul ci bañ dara yeen ñi tok yépp ak ñële yar sa doom ki may déglu nag ci internet bi ëllëg maa ngi sóoraale ne xam naa ne Sakariya jurul Mariama waxtaan bee tax ma di ko wax maanaam li ñuy tudde fis adoptif la doom ju yoomu yar luwaan la Mariama doon ci Sakariya alxuraan dee ko wax ni moom mu ngi bokk ci waa kër Ali Imran ñoo jur doom ji ñoom waaye loolu taxu ñoon jóg waaye damay bàyyiwaale xel ñi nga xam ne boo waxee ba noppi ñu tontu la kon Mariama papam joxu ko yontu yàlla Sakariya maanaam doom bi doon yar ci kër Baay Taala ci imam papam andiwu ko fi yaayama ko fi indi papam dafa tukki yaayam moo nisaroon soo amee doom joxe ko ci kër yàlla kër yàlla yi léegi nga gis ko suñu bokk yii nee leen yàlla dimbali dañuy jébbal seen bopp jàngu bi ñu jigéen ñi waxtaan wekk ko laal moo tax ma tuddaale leen booba loolu xew ñu fopp soxna si comme Sakariya góor gu mën a yar njaboot la ñu dénk ko ko bi papam ñibbisee sax mer na ci waaye mu ni moom comme am naa sañ-sañ ci sama doom ndax li la war sama diggante yow lépp xañ na defoo yóbbu naa ko ca daara ja loolu jotale Sakariya ci soxna Mariama Sakariya yar ko yar ko rafet moom laa tuddee borom kër gi ci kër gi di ko contrôler di ko contrôler ba Mariama egg ci en l'âge de 14 ans bàyyi ak doom a ngi dox de mosu ko may fu mu yàq nàkkam bu solee mbubb mu ko jox góor gi dana ko ne Mariama mu ne ko naam bàyyi lii de sama wërsëg eggu ci hmm? moo xam vaal la wala jës neer la wala lam doon bu doon booba jamono mbubb mii ni mu seere te man awma jëgam noo def ba sol ko bu doon léegi portable yi seen doom yi yor waaw est ce que man maa ngi toppatoo sama portable doom bu jigéen buy jar huit six cent mille francs quatre cent mille francs trois cent mille francs cent mille francs yaa xam lu mu jar yow daal da nga koy gis muy dëpp ci nopp ba di wuy ak a teg rek xamoo momet Diop ko ko may xamoo pap Dieng ko ko jox imam imam defe du noonu de dafa doon jaadu li góor gi defoon ci njabootam nga wax koog moom foo jëlee portable bi foo jële donte baaxut sa sa sa naturel bi foo jële yi ñuy dëpp ci bopp yépp waaye bu jar 300000 francs ci koo xam ne xëyut gontut te mayu ko yaay mayu ko mu xëy xëy sol ko ci boppam waroon nga indi benn lay aaya ba yaa mariam ani laki haasa doo noonu góor gi loola loola toppoon ak xale bi ci ko sàmm lii nga yor joxuma ko te doomu rusloo mukk ndax dama bëgg ci yow ndam ëllëg noonu la borom kër di sàmme njaboot teg sa bët ci moom suba ngoon ba kër nga ci am ndam ba xale bi mësër eggoon na ci sell ak jaamu boromam ba yi mu daan sol ak yi mu daan lekk gan ñi daan ñëw ci dëkk bi di jàll te yiw ñoo koy jox mi malaaka yi ñoo mu jox xaritoom di ko jox ay fur wi di ko jox ay lekk di ko rabitaaye lu ne papa ma nga kuutoon néeg ci néegu biiram maanaam kees gi nga dagg sa appartement yow amet nga wutal sa doom benn pantre di ko fii bu ko buusee loo soxla bàyyil ma jox la ko parent bu baaxee day wax doomam bul ñaan boo soxlaa may sa papa ñaan ma bàyyi bu baax day fexe ba doomam bu jigéen lu muy habillé woon nag ko jox lu muy lekk nag ko jox nay fay njàngam nay jënd fourniture am na koy defal lépp bu ko yóbboo ca internat bi na koy fayal nga da ko doon bàyyi mais doom joo xam ne xamoo fu muy yendu xamoo fu muy fanaan xamoo lu muy sol xamoo lu muy lekk te nga ne bàyyam la boo faatoo yàlla yóbbu la sawara te ñu bari seleng lu génn nañ seen loxo ci seen doom bañ ko juru bàyyi ko seen yaay te bu seen yaay meleen ni sama tànta matériel balay xool da koy jaay saa yu ko doom joxe 1000 francs mu ne ko ay doom xamoon naa ne boom màggee di dagg sama bu muy gàcc te xamul ni daggul bu muy gàccaam da koy yeewal bu muy gàccaam parce que xamoo sodom ki ko may lim yor kum do fi ne suñu suñu maire yi ku sa doom may junni nga tàcc ko kala joxul dara nga xas ko ki may junni fu mu ko jëlee ki ko joxul lu tax amu góor gi de moom loolu la nekkewoon am na additionnité bi bu ma ci duggee da koy yaatal dafa wax ni ku yar ñaari doom yu jigéen baa ñett ba mayee leen te muy ñu yàlla tabax nga sa àjjana rasulaay ko wax de day dugg ci waxtaan rek waaye tax moo na jóg loolu kon góor gi lii la waxoon ak doomam ba Mariama màgg am fukki at ak ñeent ci sardin wu bi ne ci ginnaaw këram ndax nit daawu ko gis bu Musaa bëgg a féexlu papaam amoon na kër gu yaatu gu am sardin ci sardin bi lay doxantu ba mu demee ca sardin ba di doxantu dafa dajeeg benn waay bu ñuy wax boroom kër ku bëgg ku bëgg mën nga ko tudde soxna li ngeen di tudde incarnation du sax labat da doon yow wala Assane Fall mooy booy na def xam nga boobu ngeen gën a miin ndeke ko mel ni yow am na ci dëkk bi bu dee Amet Jóob loolu lay wax musuma gis ku mel ni yow yow fu la sa papa dencoon xoolal mu ngay nooyal kàddu ko kat ndax bëgg bunt loolu foofu la tàmbulee loolu la ko kenn nga ci dëkk bi amoo fi woon yow fan la dencoon Mariama mas kaw parce que tey la mos a xale bu góor bu mel nii xaw tolloog moom aas di commencé dugal wax ci noppam mosul dégg bu dul waxi papaam ci góor benn kàddu mosul dugg ci noppam bu dul kàddu papaam dañ ko dañ ko defoon ci roq denc ko jëbri commencé parce que missionnaire la bu ñu yónni ci moom xam nga lu tax suñ borom dina la ko wax ci kanam jibril commencé ak moom nanga def lu mu ko tontu ndax dañ ko yar sëñ xarit defe naa ahonsu bi rahmani mink in kuntu taqiya wala in kuntu taqiyan xam nga dafa am taqiyu ak taqiya yi mooy ko ragal yàlla taqiyan mooy ku bew am na ñu ci borom xam-xam ñu wax ni benn agresseur la wala benn agriculteur bu nekkoon ci dëkk bu tudd noonu siiwum turam siiwoon na ci ndax daan xar xar jigéen ñi di leen di leen wéyoo de ba waa dëkk bépp di wax seen doom na ngeen moytu mbedd sàngam mbedd sàngam heure sàngam ndax diw bi Mariam génnee ci sardee papa ji di doxantu jibril cëpp ci kanam yor malaaka nit Mariama pour moom kii waajee mu ne maa ngi ñaan yàlla xoole bi xale bu jigéen mu dimbali ma te musal ma ci yow surtout bu dee yaay agresseur bu nangam taan bi ban xale bu jigéen la xale bu góor di wax piis jooju ngeen def wala booy muy ñaan yàlla musal la koo ci ne booy da nga def kay lu muy dëgg wax man maa ngi fi la lee daa tàmbali bala nga noo tudd mun la kinni suñ kër a ngi fii loolu la gën a miin moom tontuwul noonu maa ngi ñaan yàlla musal ma ci yow la wax su fekkee yaay waaju beew ji nga xam ni violence rek la fi nekke kon kii yar nañ ko kon papa ji mat na papa ndax contrôlé na doomam ba bëggalul kenn dara ndax mi ngi koy def li ko war a defal mais doom ji bëggalul kenn dara ndax li ko papaam defal doy na ko moo tax bi ko góor jëkkee sànni kàddu mbëggeel rek dafa rejeté maa ngi ñaan yàlla musal ma ci yow bëgguma la xaw ma yaay kan bu ma jéem ma xam kooku wute naag fan la sa kër nekk xale yi ak ñu cee xale yi jigéen ñi dama laa soxla bu ñëw sama kër papa de wax ma fi nga dëkk rek wutal ma appartement moom du wut appartement du fekkee ci asan mën ko fexe ba génne ko kër ci koo koy mariam xale bu yàlla te momet histoire bi doy na waar sëriñ ci dugg de xam nga lu jibril wax ñaare ngeen bal ma doxan doxaankat day dëgër bopp hmm? bëgguma la du té du té mu ñëw pourtant boy lo soxla man na ko de mbaa daal mbaa dugguma ci sa terme ah. xale yi nii man nañ lool de xaw ma nag bi tuubee ci ba dugg ci jullit bi ba noppi waaw <laughs> ah. pourtant booy loo soxla mën naa ko de boo bëggee iPhone aka ñu cee gaaw hmm? iPhone léegi ñu may la ko hmm? jox ma sa numéro lépp seen seen seen seen seen seen habitude la seen terme la hmm? bi ma la gisee nekkatuma yàlla xam na ko loolu dañ koy wax ah ñeme gu dañuy ñeme yàlla foo fekk doxaankat day ñeme yàlla yàlla xam na ko yaa ma teene law lekkatuma naanatuma bi ma la gisee ba léegi door a doxatut ah docteur sama gars yi yalla xam na ko pap motax bu len may mukk nu wax ak sa doom bu jigen ak no gaaw da ngay defene sax dañu yor ay jatukaay yàlla xam na ko hmm? waxal li nga bëgg rek lañ lay wax yoru ñu ñaari dërëm kat waaye dañu wax ba tourner sa bop bi waye mariama mo bëggul iphone du bëggul appartement te li ngay wax yëngalu ko jàpp na ne seytaane buy taxaw la parce que li mu dund ci ruham du ko wéccé motax mu ñaan yalla bi rahmani minka in kuntu taqiya ma ngi ñaan mu sant ci yow waxna la doxan doxankat day deugar bop jibril continuer action bi ko boy lolou tax ma wagniko xam nga waaw man foo taxumaa jóg xam nga loolu ngeen di wax walaay bu ubbee bunt bi doo egg ci takk ci foofu ngay yem boo demee ba xam ni moom ci ki fowul fowulut nga ko kon man foofu taxumaa jóg dama bëgg a takk jibril neen dama bëgg a marié li ahaba lakki xulaaman sakiya parce que li ma sentir daal mooy yaay sama yaay sama yaayi doom yow takka góor du lijjanti yaay doom <laughs> doom bi yow bëgg a jur xam naa ne yow yow rek yaa ko mën a am mais yow ku la may nga takk fi fekk ba bëgg fi ngénte ba am fi doom jibril daa continué li ahaba lakki <laughs> bi ma la gisee léegi dundatuma nekkatuma foog maa yow ñu sëy foog ñu am doom xulaa man sakkiya mais heureusement moom xoola li mu wax waxul doomi gaa yii de ni ko tëf ba noppi dem si yoon bu ne nit ngan du man xam nga gaaw nañ ci na seeti ki ko nangam nangam nangam du man dong ak kan? Membawa moom dafa wax ne man sakiya xale bu sérieux bu yiw bukan bëgg mu am ko la wax man sakiya mariama yi bañ kon léegi wax naa la papa ji mariama njaboot bi ak waa ji ñëw di incarné li man sakiya heure boobu Mariama di aar dettu ginnaaw la suñ borom participé ni li ma bëgg ci jigéen li ma bëgg ci jigéen bu yiw xale bi mën na ko ndax kàddu gi mu wax su doon ku yàqu du tontoo maa ngi muslu ci yow génnal ci man bu ma ko waxati du wax loolu danaa rek d'accord mais comme bañ na te bañ gi bañ yër naa xolum dëgg la ci moom dugg na ci kii danaa danaa dugal ci moom sama pexe lu mu def parce que ki ma bëgg mu feeñ jamono yaay ji ko jur ëllëti ahsanat farjaha awraam boo ko xamul baatu arab la pay la worof di wax góor musu ko yër waxuma di ko tiim wallaay wallaay ndeysaan jigéen ju demagul fenn sa yëpp góor def ko tour de monde yoon nga jàpp ne yooyu yaay jur ki gaa yi topp ëllëg te gone dem nañ ci dikkat yi dem dikk dem dikk xaw ma kaaru dim dikk la xaw ma doo jur du baax yàlla ni allati ndaw sii mën naa jur ki ma bëgg parce que ahsanat farjaha dafa sécuriser boppam mustafa góor mus ko tiim kenn musta gis wax waxuma di ca dem kon fii su ma fi jëmbatee li ma bëgg danaa ko am yàlla wax loolu de mooy gis bu mag bi ala si ahsana farjaha xam nga jibril loo war a loo war a def mu ne ko waaw mu ne ko attaqué kii takkalaate ngoro gi bu waaj demee ba nar a ragal moo koy wax booy looy daw hmm? sa lekk la loolu ngeen dox hmm? lay wax war na fax naa fii dégg ko topp ko war na fax naa fii mi rooxi na bul bàyyi de toppal booy bi borom bi tabaaraka wa taala moo làqatu ci ginnaaw jibril kat ndeysaan suñu borom la xaw ma foofu day makka roxo un wi dem na fa nafax na fiihi min ruuhinaa gis nga benn sew sew ngi fii moo xam ne naa la ko wax ci yonte yàlla insa li tax takkul jabar hmm? benn sew sew dana ci feeñ ci yonte yàlla aadama li tax mu takk hawa te takk sa doom araam pourquoi ça mu takk doomam insa takkul jabar pourquoi ça takkul jabar ba génn àdduna ak tuuma ji ko topp foofu la nit ñi di ñëwee kon wax naa la paa bi muy Sakariya wax naa la Mariam muy xale bu jigéen bi wax naa la Jibril muy muy ki muy far bi doon dox ak waa ji nekk ci ginnaawam di ko poussé ci xale bi borom bi tabaraka wa taala noo ko wax ne fa nafax naa fii attaqué wa nafax naa fii ci min ruuxina gis nga heure bi ñuy waxante ñoom ñaar ci booy dama laa bëgg bëgguma la bu ma ko waxati loolu tax ma dellu heure boobu noonu la suñu borom wax ni maanaam waxante boobu ñuy seq ñoom ñaar la message bi tàbbi li ëmbal Mariama Jibril ni ko man duma koy ñëw di dellu man duma wut ñàkk loolu la gaa yi wax booy da nga mais man mosuma dugg génn du ma am du ñàkk fokk ma am Jibril loolu la ko wax heure boobu noonu la dañuy waxante maanaam ngelaw liy génn ci gémmiñu Jibril maryaamay tontu la ko ko sol mu nekk enceinte mu ëmb ah léegi nag ndàmbu jaa ngi bëgg a sàcc maryaama dellu si ci kër gi diir bu gàtt mu yoccu tin bi sensé na xaw na xees yaram baa ngi tàng te papaam yar na ko yar boo xam ni parce que bàyyi na ci xel yar gi bàyyi na ci xel parent bi ko joxoon bàyyi na ci xel guur gi waxoon ni sama doom du dem ci kër sëñ bi xanaa ko Sakariya am na problème moo woo Mariama ba ñëw ni ko lu xew mu ne ko xaw ma ko ni ma la gisee da nga ëmb fañ doon waxante ca àll ba dali xew-xew léegi nag comme wax naa la ñaata juróomeel bi mooy dëkkandooy nit ñi duñu seere mukk ci yow lu rafet moo tax boo leen dee bàyyi xel doo dem xam nga lu ko wax xamoon nañ ko ne sa lalu bii meex sedd nga ñoom doo rek lañ man tànta ñoom xanaatu du xale bi muy meex sedd ak yooloo si yooloo bu jurul dee de ak aju cee gaaw bàyyi ko foofu rek xam luñ ko wax maakana abuki imra asaw famille yi ñu la xam leen ci sa askanu bàyyi yaa jëkk am wa maakana ummuki baqiya ñi ñu la xam leen ci sa askanu ndey yaa jëkk am xam nga looy def baal lalu bi te nga génn fi yoo ak nit ñi muy sa bàyyi doom coow li nag war dëkk bi kenn doon wax ne moo gën ci gone yi taj na dëkk bi waaw maa la ko wax nit ñi ñi nga dëkkal nga xam ne ñoom yàq rek lañ man loolu foofu lañ tàmbali coow li jàpp kaw coow li jàpp suuf coow li jàpp kaw ba xale bi mënatul génn maakaana abooki imraa saw وما كانت أميك بقيا di sortu Mariam sa côté famille yaay xamuñu lu bon sa côté famille baay xamuñu lu bon yaay ki jëkk a nekk premier génn ci lu bon koo dajal nag ci yoonu réew ba wax ko koo dajal ci kas boobu wax ko marché yi grand place yi lépp moom lañuy waxtaane Mariam parce que dañuy moo fi moo fi gën coow jàpp kaw jàpp suuf yàlla xam na ko ñuy dox ba ba ba am doom jot dëkk bi ni kër kër ni këpp Jibril mi indi woon problème ba fii rôle matron la fi indi docteur xam na ko te war a taxawu jigéen bu ëmb pour mu am doom la dellu si waat sensé melokaan wu jëkk wa fekk Mariama dafa jaaxle ba dem ci sarte bi mu ëmbi woon mu nga wéeru ca benn taatu garab ni bu ma koy waxee ci doom joo xam ne mënoon ni diwoo ko jur te moom wóor na ko ni xamul ko ko jur waaye dëkk bi coow li bari na pour ñoom saay-saay la réerul ci këkk bi la ko wax sa heure am doom jot na tey may sa infirmier infirmière d'état moom jafe yi Mariama mat bi jàpp na ko boo wéeroo rek bësal kàddu yi ko dugaloon doom ji moo koy génne su génnee rek Jibril soppali soxna si yóbbu ko am doom ci hôpital boo amee doom boppale mu ruyal ko mu taxawewaat ko ñetti rôle la ci suyee waxus si ilayka bi gis si nax la tàndarme gi nga wéeru ëkk bi teg ci sa loxo nga gësam ko tàndarma bi ni cacacacacat ëkk bu dee woon la de dundaat ci saase màgg ci saase am ay xob ak caat ci saase meññ daal di rot mu ne ko jëlal nga lekk mooy sori bi nga war a naan man na nekk comme moom allasi ahsanat farjaha fa nafaxnaa fihi min ruuhinaa suñu borom nee na dafa sécuriser boppam fooyewut boppam war naa mën a jur ku ku mën a jur ku boo xiifee war nga dekkal tàndarma war nga mën a dekkal sa bopp foofu ngay jànge jigéen en général laa la wax Mohamed ordonnance yu bari ci ëmb tappale la leneen gis ci femme boo xam ni dañ koy wéyale ca dimanche ca foofu gars di fecc mu nëbb ko yaayam ëmbe fa dana konde ba bis bi am doom du naan ordonnance dara du ko jox dan naan moo diw kañ defee ëmb rek lay wax waaye bu defee ko amee baax na tey ngay dee su ngelaw di upp mun na ma amee ordonnance bu naajee yow ordonnance soo ko ne fotal ma ordonnance dum mu yëngu rek sama nak beeg sa bob beeg sa tank yek da ngay jënd jënd ba te kat man nako baña nante dem am dom yalla xam nako waye comme mom dañuy tiitaru tay ngay dé waye bu fekkoon ni da ngay jut njaaj kenn du ko yek waye sëñ bi kenn mos ko gis yalla na leen yàlla dimbali rek daal <laughs> gis nga ko ko si lek bi sin nax la

moom la dérangé diglul seede yi ci la malaaka yi ñëwee wax na ko léegi ways xaalatil malaayika ñoom ay seede lañu malaaka yi luñ ko wax yaa Mariam soxna si jarul ngay dégg waxi ñii ba tax nga dof jaxasoo ñun de li xam dëkk ak moom lu digg ci lu bon moo la ko teg ñaare bu ndimbal di am ci biti lay bàyyi ko xoolal nit ñi ñu dëkkal li ñu ko wax maakaana abo imra saw lu bon lii yaa ko jëkk def ci askan wi o maakaana umi ki baxiya au lieu ko nu laaj lu xew dañoo ñëw rek teg ko baat bi malaaka yi seen ñu nekkul ñoo ko wax ni ko nin la xamee ñun inna la astafaaki wa tahaaraki ah, ala nisaahil alamin إن الله أصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين سيني برام دي ديغ نان موخني دا فا سيكريسي ساك سا اورا كين موس كولا خم نان نيلا صباي ياري خم نان نيغا ديغال صباي كون دو ديف كو سلو بون مريم نغا خم جيجين جيجين تي جيجين ادونا مو ياو ملائكه يكو واخ دي نيت ني نيكو نيت ني نين كي غنا بون تي جيجين ادونا مو ياو نيت ني ملائكه ني كو كي باخ تي جيجين ادونا مو ياو déglu loolu nit ñi laa wax moo tax buñ la xasee te du yow bu mu la jaaxal ñoom lu bon lañu xam foog ñu teg ko sa kaw waaye malaaka yi nga xam ne yàlla dëgg rekk li ñor te mooy seere yi dañ ko ni jigéen ji gën ci àdduna mooy yow parce que yàlla tànn na la ndax mosoo mooy wataxare ki yàlla laabal na la dangaa sell dangaa sellal lu baax rek ngay def hmm? bi ci gën a garaaw wastafek ala di sayid alamin femme le plus bon dans le mooy Mariam borom bee ko wax de waxuma ko yàlla nee na jigéen ji gën ci jigéeni àdduna yàllaa ko wax fii de benn jigéen la wax nii àdduna bu nu dajalee daa le monde entier femme bi fi gën a nekk plus mooy Mariam te yaay ñëpp ngi ci biir àdduna wax bii waxu ko ci yaay yi Seydina Muhammad waxu ko ci yaay bi yonte yàlla Isa astafurla yonte yàlla Moussa yonte yàlla keneen wax ko ci ma ba ci sunu mag ñu baax ñi benn jigéen la tànn ko yaa gën yàlla du waxantu de benn baat boobu la Moussa wax ci jigéen ñi moo ci gën alxuraan tuddatul ñaareel baax yaay nag am na fu ne waaye suñ suñu borom nee na wastafaaki ala nisahil alamin yàlla la tànn laabal la nga gën a sell ci jigéen àdduna bi ma malaaka yi ñoo koy defal bi ko bi ko bi ko mbokkam yi tegee kàddu yu bon ba mu génn di jooy malaaka yi topp ni ko muñal doom te nga dellu si kër papa toog yow yàlla du la toroxal jigéen àdduna yaa ci gën te yàllaa ko wax xam nga looy def dellul sa kër soo demee uqnutii li rabbik sujjóotalal yàlla na nga julli ñaari rakka sujjóot moo tax julli solution la pour régler problème dégg nga ko problème solution la saa yu ko amee maanaam problème bu nekk li koy solution maanaam lu jafe-jafe maanaam saa yu amee problème li koy julli la koy solutionné demal nga julli ñaar dakka sant yàlla ci sa sa doom ji nga jur malaaka yi kuddigal kon ndeke boo jaaxlee ba jaaxle te mu wóor la ni liñ la teg yow demal nga julli sa ñaar dakka ñaan yàlla sa borom te bàyyi yàlla uqnuti li rabbiki was juddi war kaxi nga jàpp say woom maaraaki ci bu ci nek nak dafa am luy wa wax judi sa yo dëppee sa jë ci suuf tasbihat bi ngay def non ak ñaan mo xam rabbi axfir li warhamni warsukni wasturni wajburni di ngeen ko wax wala subhan rabbil azim bi amdi wala subhan rabbil a'la bu ci ne ya nga wax yalla sa soxla kon was judi bo su jote ñaan ko warkaxi bo ko ñaan ko sus maaraak yi bu fekkee julli mbooloo la demal nga def ko tawoo yàlla saalika min an baaxil xay bi mariama dégg kàddu yooyu ci jaww ji malaaka yi di ko wax mu doyloo ko muñe ko kàddu yi ko nit ñi di wax parce que li muy dund fi mu ne xajatul ci àdduna bi ndax doom ju xëy xëy juddu taxamuñu baayam loolu la wax ma xam nga lu ko yàlla wax suñ demee ba coow li bari ñu taa bàyyi man maa lay jàppale may sa siis góor gu mag ji waa ji la doon bëgg maa nekkoon ci ginnaawam pour mu topp la comme pexe bi am na nag maa la ci génnewaat su ñëpp ñëwee ni la wax ni ku jur doom ji bala ñu koo tudd day am am nga doom kenn du ko tudd te ne waxoo baay bi waaw Maria ba xamul fu muy jële baay te suru tudd bi jot na borom bi ne ko inni nasartu lirahmani sawma su mbolo mi dajek imam ak falan ukallima al yawma insiyan mansiya wala alquran day waxe fi tonto fele waxe fele tonto fele bu ne waxal rek ne len dama wor ci wax xam nga wor ci bii ñu def ni ñaka lek ñaka nan wor la tudd noppi baña wax wor la tudd fop sey cër baña moy yalla wor la tudd wor dafa bari mu ne ko na ini nasartul rahman damaa woor ngir jëmbi yàlla duma wax mukk damaa woor falan ukallimal yow ma tey daal mën leen fexe ba ma wax leen li ngeen may laaj ndax xawma ko in seen man siya sus wax ak koo xam ne boo ko waxee sa soxla boo léegi mu fàtte ko nit day fàtte su fekkoonte ni yéen du ngeen fàtte xam niñ ma yaree xam niñ ma joxe ci daara ji du ngeen ma jiñ tuumal waaye comme fàtte ngeen diim ndax tey rek a teew du moom de loolu la wax waaw kon kuy wax suñu borom ne ko doom ju baax su naree te baax am na foo xam ne fa eggee mooy dogal yaayam bu muy gàcc kan mooy doom jeexe liir bu ndaw bi la yàlla fëgg ni ko dimbalil sa yaay ñi dañ ko nara a te kilifa nga nag wax ci liir bu ñu tëral ci berso mu juddu amagul 30 secondes mu fob loxoom dëstanu jóg toog nit ñi ni kër kër kër kër mu leen bu kenn buuse inni ya abdullah liir bee wax de da ngeen a bëgg ma wax leen sans pap mu ne waaw mu ne bala ma ci egsi maay kan laa leen di jëkk wax la vrai jaamu yàlla piir mooy man bébé bii <laughs> hmm? ummi abdullah xam nga lu xew aataaniyal kitaaba yéen ñëpp may topp ëllëg yéen ñi di ñu sama ay tuuma maay doon seen professeur bi leen di orienté fi ma bëgg ëllëg ngeen jaar fa man mii la aataaniyal kitaaba maa leen di intégré yéen ñëpp ci sama université ñaar wa jaalani nabiyan man yonent la duma doomu njaaloo xoolal loolu inni atani al kitaaba wa jaalani nabiyan ay na ma kuntu nag hmm? wa jaalani mubaarakan doom ju juddoo fu bon du na a prouver ëllëg lu baax man doom ju barkeel laa joo xam ni fi may dundee ba fa may dee dañ may topp moo tax li ñuy tuddee christianisme du mu sa fay ba àddunay tukki du fi jóg kenn mënu ko fay ndey ju baax moo jur doom ju baax lu lu diine yi màgg màgg chrétien am xaw ma nag ñoom daañu ko topp nañu ko war a toppam déet mais du fay nañ ko bàyyi xel de te gis nga barkeelam egg na ca fi mu ne diine joo dem fekk fa eesa ñun ñun jullit ñaata eesa la am kenn mënu ci dara yaayam daa baax doom ja baax inni abdulaatanil kitaaba wa jaxalani mubaarakan ay na maa kuntu foo mën a nekk ci monde bi nag nii laay mel ba bu ngeen ma gisatul xam nga li ci des waaw saani bi salaati daa leen fekk ngeen ne kojju lànkal yàlla maay rëq seen digg yéen ñëpp ngeen julli wasakaati di ngeen génne asaka xoolal jooju wax maa dumtu hayaa li fekk maa ngi ci kaw suuf deewagul def nii mu ngi ci yeneen barab suñu borom def ko fa hmm? loolu la wax mission bi ko yàlla yónni inni abdullah ataniyal kitaaba wajaxali nabiyyan wajaxali mubarak ay na ma kuntu pare na li koy mission bi bi jeex nag mooy sama yaay mi ngeen di tuumaal wa barran bi walidati yaay muñal liir bay wax de ñii dañ laa xamut ni nga sellee ni nga baaxee ni nga muñe ci kër yow yaay xam nga di nga am lu baax wa barra bi walidati xoolal jooju wax hmm? walam jab walam walam hmm, walam yashal ni jabaara walam yashal walam ok walam yashal ni jabaaran saqiya man du ma kàccoor bu génn ñu naan kii amul bàyyi may topp bis roy di naan ak a jëfandikoo yàmba ak a taxawaalu jooju doom du man yaay du ma nekk ëllëg kuy texee di parce que texeet li koy yóbbi nit mooy def bon insa du ma kooku xoolal jiitoom ni mu daggale yaayam bu mi gàcc waaye xoolal ji yaay ni mu sàmmee boppam ba jur di jiitoom xoolal bii bàyyi jibril fi mu jaar ba incarné xale bi waaye xoolal parent ba nam yare doomam Sëriñ Asan foofu la dugg dem ba seede yi malaaka yi ñoo ñëw di seere yaay ji ina la astafaaki يالله مولا سلال وتهارج يالله مولا لابل واستفاك على لسان العالمين يمول شي سلال لا يمول شي لابل لا تكنا لي كو جيجين نيب ناخ نيغا مل جامو يالله رك نخم ركو سجود ها اك ديف لو با خمو لو با موتاخ فوك خمان نغي كو ملني نغي مانا جوب نياكو توما لون نيب كره تريبنال بي نيب تروخ كوكو ندي جو باخ نوك جيجين ني جانغات pour am doom ju mel nii Iisaa waaye na ci parents yi jàngat pour yar seen njaboot ni Mariama waaye na ci xale yu góor yi jàngat pour mel ni Iisaa pour fayal seen yaay gàcce ëllëg buñ topp dëkkandoo yi nga xam ne lu bon rek lañ xam di ko wax ci nit waaye nañ diglu seere yi ngir jëm yàlla muy malaaka yi Muhammad sallallahu alayhi wa xoolal bii waxtaan bu rëy bii moom la indi tey jii boo ko toppee kenn du xam fooy ekkee inna la astafaaki yubasirku bi kalimatin minhu ismuhu almasiha isa ibn mariam mu nekk wajihan fi dunia njàmbaar la de insa ci àdduna prouvé na ay profam lu la def na ko ngir yàlla waaye wa fil aaxira boo léegi bu ndekkee nga xam suñ borom dana ko teg ci kaw ñu ne buñ ko jàppee tuuma ji ko nit ñi teg ña tuumaaloon yaayam ba mu juddoo ñoo ko tuumal tuuma ji ko dal ña ko waxoon ni ko doo doomi yoon doomi njaaloo nga bin demee ba wax bi amul fu ñu ko teg daan ko ne koy sa baay yàlla ñoo ko jënd moomu yàlla yàlla ni leen tuumaal ngeen yaayam ma topp leen leen ngeen tuumaal ma man ni ma damaa jur doom boo léegi dingeen ma wax ban église laa takkee ndaw si borom bi nee na église bi ñu takkee bi ma takkee Mariama yéen ñi maay baayam maay baayu Insa dingeen ngeen ma ko wax bu fekkee takkuma ko nag da ngeen mën naa yàlla wax de ñaara mën am rek gaa yi dañ ni yàlla moo takk wala moo wéyoone ñoo koy lijjanti ñoom wax jaa ngi ni yàlla na ci yàlla musal sërif asan tey histoire boobu loolu indi yàlla xam na ko bu ñuy jàng alxuraan dama leen di topp mbégte mi day ëpp yàlla yàlla defal nu jàmm ak tawfeex ak sutura hmm? loolu mooy li fi nekk Muhammad sa alayhi wa kon nag alxuraan a ngi noonu benn baat bu nekk la muy jur boo ko seetantalee nag ku nekk jéem ci nun looy yont ya, yalla Sakariyaa rek ci sa njabot bu tay mukk ba kera nga koy maye nga bari waxa ta bi daa rek seen bay ba len jam bo beugé lu bax mu met lu ne ngay dik na la yalla gënal ñooñu ndax buñ la seetaanee ba nga dugg ci njaaxum geet ñoy gën reetaan la ni ni ko wax maryam rek sefam yi nga nekk yeb ya jëkkaleetu woon fu ñu génn waxtaane la motax lo ci man nang ko def ba lu xew nga xam ne xew na mais defar sa rôle waaye nit ñi fi toog na ku ne jéem di insa ci njàmbaar ci muñ ba keneen ñu am li ñu bëgg lu tax takkul jabar parce que nekkul woon kon takk bay juróom te lu ci nekk la ko sos ma koy dégg moo tax boo gisee ku koy roy fii doon magum jëm ni la nga yorub sikkim dama takk jabar est-ce yaay kooku bokku leen nu ngeen tudd moom dañ ko jur par message yow mën na laa jur par message yow ndox lay jur yow ak rapport loolu faat na yonent yàlla aadama lu tax mu am doom takk ko daf ko jurul ci awra su ko juroon ci géñoom maanaam ci awraam du ko mën a takk lépp loo xam ne sa awra la ko may muy sa doomam bu jigéen mënatoo ko utiliser dalay aram moo tax bi mu waree juddu xam nga césarienne jigéen bu war a am doom ñu ni mënta juddoo ci awra ñu xotti ca dañoo xotti aadama génne ci awra parce que dafa ko war a takk ëllëg te bu ko bu jaaree ci awraam du ko takk xoolal yàlla fekk maa ma ngi noonu yalla yalla defal ñu jamm ak tawfiq ba soñu dess wa xamna waxtan naa waxtaan gudd na tey waaleykum salaam wa rahmatullahi wa rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim watub alayna ya mawlana innaka antat tawwab rahim bi judika wa karamika ya allah ya hayyu ya qayyum ya sol yàlla yalla fa faj seen